bu ñii di jàng xasida Baay Faal yi di tudd yàlla Touba di riir neex ni aljana lii la sëriñ Muntaxa digal sëriñ Amdi Moodu Menda ndigal lu ne ndimbal la kaay wuyu bu ne kaay jël la nañ wuyu ji ci bile bisu xasida yendoo sikar sa penku jumaa ja ay ca Baay amul xalaat li sëñ bi bëggaat dana amaat lum yaa yaa mbaa lum xat-xat foo woo ñu wuy la Mbàkke ñooy say soldaar